génnu signal journal bi nee na Babacar Diagne daan nay arrêté programme yu Rewmi waaye nag la nga xam ne moom la taafantaloo nee na waa Rewmi TV dañoo waroon a ab convention ak ñi nga xam ne ñooy waa Sénéra waaye nag loolee moo doy waar lool ca mbir ma ndax ñi nga xam ne ñooy waa Excaf Télécom ñoom dañoo am lu toll ci 46 chaînes yoo xam ne dañu ko daal di héberger te 46 chaînes yooyu ñoom daal nañuy signé ab convention ak waa moo groupe réew mi network moom nag li ñu ko xamee ak li nga xam ne moom lay doxee mooy l'équilibre notre credo journal bi ne ñoo fi liggéey maanaam dañoo tëddee njaaxaanaay yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na Babacar Diagne mii nga xam ne moo jiite sénéra mbaadu a neexal président Macky Sall ndax yàggatula président Macky Sall dina ko may ab audience mbaadu nag dafa a yóbbaale nga xam ne daf koo daal di ko defee mu bëgg ko def ab trophée de guerre Babacar Diagne dafay foowe ak li nga xam ne mooy fréquence maanaam ab télécommande am la yore yor ko ci loxoom maanaam di coupé ak di taal maanaam ni mu ko neexee ak ni mu ko yëgee ak ni mu ko safee journal bii de la Soleil xëy wax ci 4 avril bi nga xam ne niki démb la woon a fête de l'indépendance ginnaaw ñetti at yoo xam ne maanaam défilé amul démb gars yi défilé nañ ba seen xol sedd njiitu réew mi di président Macky Sall nay wax ne jamono ji armée bu Sénégal am na ay matukaay yoo xam ne maanaam danañu mën a jàmmarloo ak lépp loo xam ne jëm na ci wàllum bëgg a salfaañe kaaraangi réew mi ak jàmmi réew mi njiitu réew mi di président Macky Sall daat nay wax ne danañ yokk naka kàttanu ñi nga xam ne ñooy force de défense et de i kaay gi xam ne ñooy armée bu

matériel yoo xam ne danañu mën a assurer lépp loo xam ne jëm na ci kaaraangi réew mi démb nag fierté askanu Sénégal ci 63e anniversaire bi nga xam ne doon nañu ko amal 4 avril bu démb bi nag maanaam tax na ñu bare bari daal gis daal xam équipement yi nga xam ne sunu force de défense et de sécurité yi daal nañu ko yore président Macky Sall xaalis bu bare bari la jël daal di koy ay jumtukaay ay équipement ngir nag lu jëm ci sunu dix yi am na ay réew ci Sahel yoo xam ne jot nañu koo songo te Sénégal pétrole ak bii nga xam ne maanaam ñoo koy xaar gars di wax ne malédiction la loole nag c'est normal armée bu Sénégal jamono ji am juntukaay yoo xam ne dana doy sëkk njiitu réew di président Macky Sall daan nay jël engagement naka ngir protéger lépp xam ne jëm na ci kaaraange askan wi ci biir réew mi ak ci frontières yi rawatina sunu ressource naturelle yi nga xam ne maanaam mooy pétrole kàddu yi waa direct news la journal bi di wal fajiri xëy duñu xibaar naa ñu discours à la nation bi njiitu réew mi di président Macky Sall doon amal am na ci nag ay points yoo xam ne Macky moo ko fàtte ci loo xam ne daf koo neex rawatina ci lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat bi ak violence politique bi nga xam ne nee na coobay ci réew mi ak lu jëm ci wàllum arrestation yi nga xam ne ma ngi mel ni tulleeg màll ci réew mi journal bi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu ci discours à la nation moom nag jamono ji nee na ubbeeku na ngir waxtaan ngir jalo ko force vive la nation yëpp président Macky Sall nee pare na ngir daal di dialogue yéen kay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu président Macky Sall nee na jamono ji ubbeeku na ngir waxtaan Alioune Tine nee na nag taxaw fii naan ubbeeku na ngir waxtaan ak ñëw leen ñu dialogue loolee rek doyu la dafa am ay acte yoo xam ne moom la président Macky Sall war a teg Aminata Touré ci biir surnal bi nee na waxi Macky Sall ji bu leen ci rawee maanaam perte ngeen ndax dialogue bii nga xam ne Macky Sall moo ngi koy woote maanaam weesuwul li nga xam ne mooy ay tuñam yi te loole nag xaaruñu ko ci mooma yéen kay gi di Walf Fadjri ñu xëy fekk fa Jean Charles Biagui nee na lu jëm ci wàllum dialogue question boobee weesu nañu ko dépassé nañu ko yéen kay gi di Rewmi Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu défilé bi nga xam ne démb doon nañu ko amal am na ñenn ci askanu Sénégal ñoo xam ne nee nañu nag ndax lii mooy nekk défilé bu mujj boo xam ne moom la président Macky Sall def en tant que njiitu réewum Sénégal maanaam 4 avril bu mujj bu Macky Sall loolee ab laaj la boo xam ne ñu bari ci askan wi ñoo ngi koy laaj démb am na ku tudd Alioune ca place de l'Obélisque moom parcelle la jógee bi ñu ko laajee nee na moom xam ne moom la gis ak xumbute xam ne am na ci 4 avril bi dafa mel ni président Macky Sall noonee la ko gisee am na ku ñuy wax Marème Diop Marème Diop moom tima noonee gisee mbir yi yéen kaay gi la point nee na Idrissa Seck jamono ji aw doxalinam ku ko xoola xam ne dafa mel ni dafa bëgg a samp ndëndam ci élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëgmal la waaye nag Idrissa Seck jamono ji dafay xool porte de sortie te nag soo muy tuulee Macky Sall mën jël jël ko ca fenêtre ba te nag Idrissa Seck bis bu génnee dana jàmmarloog xam ne taxaw na bu parti réew mi yéen kay gi di wal fa jëre nee na Idrissa Seck soo moytuwulee li nga xam ne moo ko daloon ci Pape Diouf ak Omar Gueye moo ko nar a dalaata ndax Idrissa Seck ba mu njëkkee dugg ci gouvernement Macky Sall bi ba ñu ko dàqee Pape Diouf ak Omar Gueye dañoo lànkoon na duñu génn ci gouvernement bi boo moytuwulee Yankhoba Diattara noonee la nar a doxee yéen kay gi di xëy diñu xibaar nan ñu a Seck jamono ji ma ngi teg ay jéego yuy firndeel ne dafa bëgg samp ndëndam ci élection présidentielle 2024 yi nga ne moom la ñu dëgmal ndax Idi daan nay wax ndaw ñi ndax accompagner ngir ma dem seeti li nga xam ne mooy coupe du monde fii ak ñeenti at ma indi leen coupe du monde bi loolee la Idrissa Seck daal di xale yi yéen i kaay gi de Les Échos nee na Idrissa Seck dàq na Yankhoba Diattara te li tax mu dàq Yankhoba Diattara moom Yankhoba dafa ànd ci ñetteelu candidature président Macky Sall yéen i kaay gi de Libération xëy duñu xibaar nañu procureur dafa daal di santaane ñu daal di teg loxo docteur Samir Boulo ak Mbagnick Ngom ci lu jëm ba tey waaye nag ñaari médecins yi laajee ñoom dañoo yëkkati li nga xam ne mooy secret médical ndax ñoom nee nañu wàllum ko maanaam du ko mos a joxe benn yoon procureur na leen lii ab enquête criminelle lañu ñaari docteurs yi na ko nay enquête criminelle waaye secret médical bi moom maanaam dañu koy garder ñi nga xam ne ñooy waa SAMES ñoom nag daal nañu dugal ab préavis de grève ngir nag ñaari docteurs yi nga xam ne ñoo ngi leen di teg loxo yéen kaay gi di sunu lamb ñu xëy fekk fa Gris Bordeaux daan nay dal ci kaw Ama Baldé nee na Ama Baldé jamono ji li mu bëgg mooy fexe b daal di may écarter ngir mën a bëree ak Modou